27 yi tué par Macky Sall eh, waa waa Benno Bokk Yaakaar régime de Macky Sall tué eh, les eh, les morts de la République euh, Baye Cheikh Diop 17 ans la am Sénégal lañ ko rayee Macky Sall ak ay nitam Bakary Diémé ans la am Macky Sall ak ay nitam Oumar Sarr par Macky Idrissa Drago, 24 ans, tué par Macky Sall et son régime. Famara Goudjabi, 20 ans, tué par Macky Sall. Cheikh Koli, 20 ans, tué par Gérald Fall. Ousmane Badio, 16 ans, tué par Bokar Yag. Mohamed Silla, 19 ans, tué par Farbongom. Sidia Diata, tué par Macky Sall Tamsir Cissé tué par Macky Sall Mamadou Diatta 26 ans par Macky Sall Bounama Sila Sagna 14 ans tué par Macky Sall Massiré Gueye par Macky Sall Serigne Fallou Sall tué par Macky Sall Baye Fallou Sène tué par Macky Sall et son régime Mansour par Macky Sall et son régime Mamadou Korka Ba par Macky Sall et Moustapha Gueye tué par Macky Sall et son Bey tué par Macky Sall et son régime Ismaïla Traoré 28 ans tué par Macky Sall et son régime Chérif Abdoulaye Mané tué par Macky Sall Lassana Diary Sow tué par Macky Sall Alassane Bari tué par Macky Sall Sano 25 ans tué par Macky Sall Bassirou Sarr tué par Macky Sall tué par Macky Sall Mor Nguer Ndiaye 22 ans tué par Macky Sall et son régime Mamadou Ndoy 53 ans tué par Macky Sall et son régime Idrissa Diédhiou tué par Macky Sall et son régime Thierno Daha Ba 20 ans tué par Macky Sall et son régime Khadim Ba 21 ans tué par Macky Sall et ses nervis Cheikh Wade 33 ans tué par Général Fall et son régime Pape Sidia Mbaye tué par Macky Sall El Hadj Mamadou Cissé 26 ans tué par Macky Sall Abdoulaye Camara di Baba Kana tué par 38 ans tué par Macky Sall Sadio Camara 21 Oumar Sarr tué par Macky Sall Mamadou Tall tué par Macky Sall Mohamed Silla tué par Macky Sall et son régime Mamadou Bey tué par Macky Sall Mala Mané tué par Macky Sall Doudou Diène 34 ans tué par Macky Sall Babacar Samba 20 ans tué par Macky Sall Cheikhouna Ndiaye 21 ans tué par Macky et ces bandits cons ces bandits saltés et ces nervis Cheikhouna vingt et ans tué par Macky Sall Mansour Thiam vingt ans tué par Macky Sall Moustapha Dramé trente cinq ans tué par Macky Sall Alassane Bari dix sept ans tué par Macky Sall Bourama Sané douze ans tué par Macky Sall Mamadou Ndiaye vingt et ans tué par Macky Sall Idrissa Goudiaby 43 ans tué par Macky Sall Didier Badji chef de la gendarmerie tué par Macky Sall Fulbert Sambou général chef de l'armée nationale tué par Macky François Mancabou ex-soldat tué par Macky Albert Abdoulaye Diatta tué par Macky Sall Adji Diallo ans tué par Macky Sall Pape Mamadou Keïta 11 ans tué par Macky Sall Ismaïla Diédhiou tué par Macky Sall Mamadou Moustapha Gueye 44 ans tué par Macky Sall Bassirou Sarr 21 ans tué par Macky Sall Mame Balla par Macky Sall Souleymane Daffan Sarr par Macky Sall Mamadou Bey tué par Macky Sall Moustapha Badji par Macky Mami tu es par Macky Sall. Landing Camara, es par Macky Sall. Modou tu es par Macky Sall. Alpha Tunkara, es par Macky Sall. Prosper Clédor Senghor, es par Macky Sall, étudiant. Mariama Sagna, eh, agressé et es par Macky Sall. Doyen Seydi, agressé et eh, es par Macky Sall. Aliou Badji, tué par Macky Sall Ismaïla Pandos Diédhiou l'étudiant tué par Macky Sall Gora Diop tué par Macky Sall Mamadou Ba tué par Macky Sall Pape Amadou Keïta tué par Macky Sall et son régime de voyous de bandits de criminels de Pape Amadou Keita, tué par Macky Sall. Abdoulaye Diédou, tué par Macky Sall. Aliou Bodian, tué par Macky Sall. Siaka Diatta, par Macky Sall. Oumar Sarr, par Macky Sall et son régime criminel, voyou, bandit, agresseur, malfaiteur, Umar Sar, dia par Makisal. Usman Bajo, dia par Makisal. Sall et son régime criminel, voyou, bandit, agresseur, assassin, menteur. Umar Sal, jam, dia par Makisal. Baba Kando Ndoye dia par Makisal. Sall et son régime de voyous. Mamadou Ndoye tué par Macky ça fait quatre-vingt-sept personnes yoo xamante ne lim naa leen fi Macky Sall ak waa régime am ñoo rey quatre vingt yoo xam lim naa leen fi yoo xam Macky Sall moo leen rey ak wa régime am recruter ay nerveem génn ay journaliste fay leen ñoom Madiambal Diagne ñoom ñëpp toog ci télé bi di ñu duul ak ay nervi journaliste ñoom ñëpp toog di ñu fenal recruter ay nerveux ñu nekk ci terrain bi di rey recruter ay nerveux yónni leen ki tale yi recruter ay nerveux commissaire am ñu def groupe di fen recruter ay nerveux procureur am mu ñuy fen recruter ay nerveux avocat am mu ñuy fen recruter recruter recruter recruter ñoom ñëpp ñu ñuy fen te ngi rey quatre-vingt-cinq quatre-vingt-sept personnes quatre-vingt-sept personnes ay martyrs lañ Bassirou Diomaye wax na ji Ousmane Sonko wax na ci CPI mi ngi ci tànkam mi ngi seen tànk dañoo bëgg Macky Sall ak lépp lu bokk ci moom man de balaa sama xol di sedd guy ma toog nay bu may faatoo bu ma dee ñu xam ne kat carrément kii kat tàlli na mooy ne yàlla ngir yàlla ngir yàlla na gaaw na enquête yi gaaw ñu teg leen ci yoon bala yoo tee keneen ku munti doon dootoo am sañ-sañu rey doomu aadama xar sax boo koy rey da koy ñàdd waxatu mala doomu aadama nga kay del ay bal fetal ci mbedd waxatu otot jaar auto daw bam yàgg jaar ci kaw nit waxatu mala nga japp nit deug baat bi waxatu mala nga jël nit jël ay ay ay ay ay mous diko diko tokal ci yaram bi des actes de torture de première catégorie des assassins de première catégorie li lepp xew senegal ngeen ne wa APR yeen ngeen ne ñun li duñ leen ko fatali saa bu ma xëyee laa wax ma ñëw ci benn ci yii ma citewaat turu ñi dee woon ci réseaux sociaux laay waxee faalewu ma kenn ku ma woo di ma ñaan naan ma ay général Moussa Fall ko baax laa ko social laa ko def nangam dañoo bëgg moom général Moussa Fall mu wax ñu moom lan moo tax moom bi mu jiitee gendarmerie muy xulle ba ñu rey fa quatre-vingt-sept personnes dañoo bëgg xam Bocar Diack lan moo tax yow lan moo tax yow Macky sàll bi Eumady di commencé nekk koo woon directeur police lan moo tax mu andi la fa général Fall bi Amady di commencé nekk woon nekk haut commandant de la gendarmerie la motax tax indi la fa lan mo ne woon seen jublu lan motax tax ngeen xoolee civil jiite réew mi ngeen di ay homme de tenue xolé civil bi def lu ko neex ba genn dem ngeen ne tek nak alal lan motax lan motax lan motax le mal est profond ngir yalla ngir yalla ak yonent bi ñi ngi ñaan son excellence mu gawal li mu gawal li ndax mal le mal est profond gars yi dañ ñoo tooñ di xam kan moo a rey sa liggéey bëgg nañ xam ñun kan moo doon jéem a taal suñu kër pour rey sama famille man duma bàyyi xeex bi fii ak gisuma ci lu leer fii ak teguñu loolu sur la table de procureur ñu xool ko ba xam ko duma bàyyi xeex bi tal nañ nag leneen ñoo gagné réew mi dëgg la dañuy liggéey de parce que Diomaye Faye commencé naa liggéey moom Ousmane Sonko defar nañ yoo xamante ne nii tay boo nekkee ci administration nga ñëw di liggéey ci da ngay tek sa baram bu génn sa photo génn sa tour ñu wax la heure bi ngay dugg ak heure bi ngay génn mo am ci réewu tuba bi tay passé tay Bassirou tey sëñ Bassirou tey Ousmane Sonko yéen bax baax yéen a gore yéen a dimbaliwaat Sénégal yéen a ñu suqaliwaat sonnoon nañu pendant des années ñuy ray pendant des années ñuy doulal pendant des années ñuy dàqe pendant des années ñuy xas duñu mbéj duñu toroxal ana met la Hadj Diouf Momo memang woon te momo, rajo yi moome faa léegi est ce que ñu may dinaa génn Karena benn baat bu defee dem kaso ana Aliou Dembourou Sow ana Aïssata Tall Sall ana Macky Sall ana Antoine jom ana Farba ana Doudou ana ngeen ana ngeen bi may doo leen sax génn seen kër yi ñàkkukati jom yi sax gor rey ay sénégalais ngeen ne dañ koy bàyyi bu seet saa bu xëyee rek attaqué leen rek wax ci yéen saa su xëyee rek bu wàccee rek balaa ma nelaw ma attaqué leen wax ci yéen dinaa wax ci yéen de kenn du bàyyi ngeen demee noonu dañoo bëgg lépp leer ngir yàlla te xam naa day leer de ku sàkkoon sunu xaalis goqi les sénégalais ils ont ñaata sénégalais ñoo dee biir ndox mi ñaata sénégalais ñoo dee ci yoonu Libi bi ñaata sénégalais ñoo dee ci yoonu Nicaragua bi ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata ci réew mu am pétrole am or am gaz am phosphate am uranium am manganèse am cobalt am fer am zircon am marbre suñu réew la manqué am aluminium am suuf am naaj neuf mois saison de pluie trois mois benn sénégalais mënul xëy ba am foo jàpp nit ñi sonn génn di manifester seen mécontentement ngeen yor suñuy milliards fond Covid 19 ak yeneen ak yeneen ngeen ne yéen doo leen génne ngeen ne yéen ñu duñ ko yuuxu ci télé rajo yi <laughs> tey ngeen xam ne ñu yor Sénégal jamono ji mooy ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa impôt domaine wàllu fisc rek lañ jàng lépp lu fi waay def duñ ko leeral bu soobee yàlla lii moom maa leen koy wax di leen ko waxaat di ko waxati di leen ko fàttali te saa bu ma xëyee rek fàttali leen ko waxaat leen ko tey Sénégalais ils ont ils ont xoolal son, son, son, son, sonn fenal ngeen ay commissaire Fénal nañ ay procureur Fénal nañ avocat Fénal nañ Ray rey ngeen ñu tëj ñu ñu terroriste jiñ force occulte jiñ ngeen ñu lépp ngeen ne ñun duñ wax ñoo Mandal, wax kum neex artu ngi

ma jox leen audio dama ko enregistré nee na ñoom mënuñu ci woon daa parce que Macky Sall moo ko ko jiite woon